jërë ngeen jëf hélicoptère bi daanu woon bërki démb ca Misira ku bëgg a xam la ca xew dëgg-dëgg xooli ko ci l'observateur ab film lañu yéene bi defal ci crash bi ña ne woon ca hélicoptère ba te yàlla def ñu mucc ca ak ñi jiitu woon ca fa hélicoptère ba daanu ngir doon wàllu gaañ yi ñooñee ñu nettali journaliste l'observateur yi na mbir ya demee accident baak na mu mittee ña ca mucc ak yuuxu yañ doon yuuxu ba gaañ yi dégg leen ñëw di leen wàllu ñu leen di sowee ca lëndëm geek ñu yoroon ak it génnee leen ci hélicoptère beeg jafe-jafe rek moo nekkoon ci hélicoptère ba muy buntu ba ca ginnaaw waaw fa la doon jaare la gaañi lépp mi ngi ci journal bi la si ne ñu ak kanamu ñenn ñu des ci accident ba bokk na ci Emmanuel Sarr moo doon dawal hélicoptère ba moom nee nañu suba ci samedi ji sax ca la waroon a takk jabar keneen ku ci bokk moo di sergent chef ca Ndeela Fall mécanicien pilote bu hélicoptère bi la ma nga cosaanoo ci mbumbaan nga ca Fatick zoro lañ ko doon woowee bàyyi na ci ginnaaw benn jabar laajte bi nañu bilan ba yokk na ñi rafet ju ñu ca def ba sauvé ñu bari ci accident ba Louis Philippe Sagna journaliste RTS beeg njàmbaar gam wane ci yëf ya lépp mi ngi ci journal La Cloche source a bàyyi fi ñi faatu dem seeti ñi blessé ci accident bi ak nañuy dundee seeni blessé traumatisme comment ak sonn lool ba ñuy seet ñu leen di réanimer yéenekaay bi nañu ca foofee la toll réew mi quotidien dëggalal ñu ne bilan accident ba yokku na la xew ca Missira journal bi nañu moo waral a mu waroon a dem ca daaka ba président bàyyi na ko Robert Sagna mu jaaxle ba jàpp gémmiñ gi moo nekk ci mu njëkk Le Quotidien ba am ca Missira ñàkk na ci mbokk yu bëri ne juróom-ñetti nit yi faatu ci accident ba yéen a kaay bi ne nañu juróom yëpp ay mbokkam lañu Quotidien nañu Robert goqi na naqaru xol bi mu amee ci accident bi ca Ndeela Fall di pilote bi doon dawal hélicoptère bi baayam di Mamadou Fall xëy def ay témoignage yu doy waar ci doom maam mbay njaay la tudd fanweeri at ak juróom la am cosaanoo ca Pire marchand ambulant la woon bu ne woon Espagne pëlisub Espagne ñoo ko doon dàq démb ci mbeddi Espagne yi mu kiris daanu jaare ca faatu l'observateur nañu moom waa ji def na ca Espagne fukki at démb la doon dàqanteeg pëlisu Espagne ci tàkkusaan gi fa ruuga des ca taliba góor gi di Abdoulaye Wade këram di parti démocratique Sénégal yëngu na yéneen xët mu njëkkulise ko commission a Saliou Dieng ak Valdiodio Diouf dañoo mel na xaj ak muus muus ak ñaw dëgg mooy tax Macky Sall génn ci li mu nekk xooli leen direct info li ko dal ca Touba moom Macky Sall li yéen kaay na ko fa munu ba baax le ne gaañ Abdoulaye Wade la ñu gëm ni ko Touba wane ginnaaw bu ko Tiwaawoon defee noone ana fan la jëm ci wàllu ko boole cekkit moom Macky li ko nar a gën a yàq jaaxal ci Tiwaawoon moo di jàpp gi ñu jàpp Xalifa Sàll waaw turandoo karo bu baax nu muy mel